Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu ngi tey si seen émission gëstu bés si avec Sister Banita sur Salam Vision ñu ngi tey fii nii si Pikine Lansar fas yéene jël euh, suñu euh, passant yi suñu maman yi jaay daal di laajte euh, lan moo leen neex ak leen nakari ak tolluwaay jamono bi nan la fa demee si politique beeg si kaan bi. ñu ngi tey fii nii si Pikine Lansar euh, daal di fi fekk si tey suñu tonton tonton nuyu nañ la gannaaw bañ la nuyoo ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu ak suñu mbokk internet yi. waaw du Tall la tudd waaw dëkk fii Lamsar waaw ko ñu jàmbaar. en fait euh, tonton ñu ngi gis euh, ne euh, jamono gi yëngoon na lool te politique bee ko yëngal avec élection communale yi te ren dañoo seetlu ne changement am na ci élection yi ren dañuy voté ville di voté communale est-ce que yow loolu xamoon nga ko ak lan moo si sa xalaat. non loolu moom xawma ko woon waaw loolu moom amoo benn xam-xam waaye xam naa ne daal élection yi moom xam naa ni li ci xam na xam naa ni affaire naxe laa ci xam boobu léegi nax pour man jàpp naa ku fi ñëwee nga. waaw loolu la am ci ci ci lu ma ciy wax xatal nañu dëkk bi te dañuy nax nit ñi waaw loolu am lu meex ci ci élection yi. loolu daal moo si sa xalaat ah dëgg la moom mais euh, en fait euh, ren élection yi dafa am changement ren dañuy voté commune di voté département si même euh, classe bi xam naa dinañ leen si andil ay gëstu yi gën a leen incha allah tonton ñu gis ne Sénégal mu ngi jël ba léegi premier si poulam te mënul fexe boobu ba léegi ba dugal bi benn match la fi la def daal di am victoire stop yëpp nul la loolu nan nga ko jàngatee. Sénégal Sénégal kañ la commencé football sax kañ la commencé football. kon Coupe d'Afrique lañ nekk fu mu toll nii voilà aman ah, loolu yëguma ko woon Tony Sula mooy góol wala kan la. Sénégal mu ngi football tonton ñu ngi nekk si euh, CAN 2022 bi Cameroun. kon man maa koy soog a yëg loolu problème bi man day waaj football sax ah? Sénégal def na trois matchs de poule premier match am dafa dugal benn but à zéro deuxième deuxième match am moo gine la démb démb moo nekkoon troisième match am ñaari match yi mu am yëpp nul la. ba pare ba léegi moo jël première si kaa si si kiiwam si pulam yow loolu même boo ko seetaanoon na nga lan moo si sa jàngat. merci pour pour nga xamal moo ko sax ñun dañu xëy daw dépense mooy problème bi moo tax duñu sax tal tal max bi dëkk bi metti na Macky Sall liggéeyu ko yoruñu dara boo buggee toog di saan télé encore day xaw a doy war boo ma boo ma dara duñ ko jël ndax dëkk dëkk bi kenn euh, euh, kenn kontaanul loolu am ci lu may wax. dëgg la tonton sa moo de fin ak li la neex li la naqari comme euh, yow moom partisan ngi si réew mi. li ma neex ak li ma naqari kañ mooy njaay Sénégal jox ma sama wàll ma génn fii ci lu may wax. jërëjëf tonton am nañ mbégte kontaante si yow di la jaajëfal si teewlu bi. <laughs> ba tey ñu ngi fii nii si Pikine Lansar ñu ngi tey ak suñu grande sœur xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk interne di grande sœur tur beeg sant Ah, maa ngi tudd Lissou Ndiaye dëkk Pikine ah, Lamsaax. grande sœur tey euh, gis nañ ne euh, dëkk bi yëngu na loolu te politique bee ko yëngal ak euh, changement yi am si élection yi di si sa bureau de vote da nga fay voté commune di fa voté département di fa voté ville aussi si am na ay kii yu ko am est-ce que yow loolu bàyyi woon nga ko xel est-ce que xamoon nga ko ak lan moo si sa xalaat. waaw comme ni nga ko waxee rek dëkk bi yëngu na yëngoo xam ne politique bi moom dëkk bi. dëngal dëkk bi lool comme ni nga wax ne am na ñu bëri ñoo xam ne nag comprendre nuñ ko bureau de vote bi ñaari bureau ñaari vote la vote bi mooy commune d'arrondissement bi plus ville da ngay dem voter ki nga bëgg a voter def ko dem ba ci mbañ gaate gi jël bulletin bi nga soxla dugal ko dem dugal pour commune bi nga ñëwaataat defaat ni nga defoon jël ki nga soxla dugalaat ko pour ville bi Hmm. changement yooyu noonu am ci élection yi yow da nga koy jàng rafetlu nga ko war dañ ko waroon defee ni ñu ko doon defee wala ni ñuy ñuy voté ville di voté commune bi est-ce que yow euh, am na ñu mu arrangé. waa am na ñu mu arrangé am na ñu mu arrangé wul parce que problème a nekk ni am na ñu ko comprendre mais comme ni ngeen def nii yéen ni baax na. pour ñu gën a xam ak ñi xam woon xam parce que ñu bëri xam ñoo woon ne ñaari vote la thème bu ñu leen ko leeralul woon day ñëw voté benn voté dem seen yoon te duñu leen ko leeralal mais li ngeen def ni di dox ci gox goxaadi pour ñu xam aussi da ciy baax. ba tey ci gëstu bés bi ñu ngi si CAN 2022 bi gis nañ ne Sénégal ba léegi moo jël premier si poulam te benn victoire la am muy premier match am démb ñu ko gis euh, mu ngi euh, jël mu ngi am euh, match nul. ba pare euh, nekk premier si euh, poule bi loolu nan nga koy jàngatee. waaw ni comme li nga wax ni jël premier am ñaata point cinq point loolu xel moom mm, a ah, man sama xel nangu ko parce que kan bi ñu paase ak kaan bi wute lool lool lool lool mais de mat yu ñu paase dama koy euh, du ma ci mën def critique xam nga du ma ci mën a def critique parce que titulaire yëpp feebaroon ci li ñu wax ñoom ne dañoo feebar ci li gars yi wax. xaw ma la dañoo bëgg a éliminer xaw ma nu mu fa demee noonu ak plus ñu ne Sénégal mooy favori kan bi ba pare di ko yóbbu première heure 13 ci ñaari match loolu jaaduwul loolu moom c'est pas normal mais comme démb match bi ñu ñaari match yu ñu joué démb xaw naa tane te bi tane bi deuxième mi-temps bi la deuxième mi-temps bi la xaw ne moo tax mu demee nii mais sinon bu ñu daan football ak Sénégal football bi ñu xam teg bal bi ñu xam dañ ko joué mais problème en est que tamit terrain bi benn baaxul ñaar booy football ku taxaw sa camp fii ba ilaa yow mi diine boo dul solution doo dugal boo utul benn solution percée doo dugal waa ji ñëw na taxaw ci camp Clépasse tamit ñëw na taxaw ci camp non boo utul solution percée non non ay niir ngay deewaale ah nga ñibbi. waaw grand yow xanaa footballeur nga woon ah, waaw moo tax macha allah gëstu bi moom rafet na trop euh, léegi boo amoon sa mot de la fin ak looy sànni askan wi ak leen neex ak leen naqari lan lay doon. ah waa am ci lu neex lu naqari parce que dëkk bi métti na métti goo xam ne moom ku nekk da nga koy seet sa bopp rek mais li ñuy ñaan rek mooy yàlla may ñu xéewal saa mbaawaan dëkk bi nit ñi dal ku ne xam li nga war a def xam li nga war a nekk boo xëyee nekk ci suñ borom defal ñu xéewal rek ñu ñëpp ñu am ndam yéen ngeen am ndam ndax li ngeen def tamit liggéey la liggéey boo xam ne di dafa métti di ñaa ngi toog seen kër mais yéen yéen ngi toog ci naaj bi tàng bi man ci kër gu sedd fi ngeen ma fekk ma toog du ma fi bougé te yéen yéen ci naaj bi tàng bi ñàkkutoo xeeb ah yal na la yàlla defal jàmm yéen am na solo lool waaye ñu ngi lay gërëm si teewlu bi léegi ñu ngi fii nii si Pikine Lansar ak ñu maman bu ñaawul bi macha allah maman ñu bàyyi la nga présenté wu tur sant bi. Ndeye Fatou Thiam maa ngi fii ci école 6 Pikine Lansar. jërëjëf maman tey euh, ñu ngi gis ne euh, dëkk bi yëngatu na lool te politique bee ko yëngal maman ñu ngi seetlu ne ren ñaari euh, élection bi ñaari vote moo am si bureau de vote yi da ngay voté ville di voté sa commune est-ce que yow loolu yëgoon nga ko ak lan moo si sa xalaat. waaw mën naa ne yëg naa ko mën naa ne yëguma ko parce que man xamal man bu ma xëyee maa ngi si sama liggéey li may seetaan télé di déglu information bariwut mais des fois damay taal sama rajo am ñu may dégg mais ñaari wat yi ñu wax dañuy wat nii ak lii ak lii loolu yëpp daal man li nga xam ne tënk na ko rek lépp nañ ci def jàmm rek parce que lépp Sénégal la jàmm daal waaw ñaari wat ak benn wat lépp booy xool benn la mais nañ def rek jàmm waaw yow est-ce que lider yi la fi romb ku si nekk di la woon programme est-ce que am nga si yaakaar ak réew mi ni mu ni mu jaxasoo ak bi ni mu mel léegi euh, dañuy ñëw présenter la seen programme te bu euh, élection yi jàllee ñu fay seeni i téléphone nekk si li leen neex est-ce que yow ñi la fi romb yëpp am na ku la ci doy ak teg seen programme doy na la wala yow am nga si yaakaar. waaw loolu ba tey am na ñu may romb bari nañu mais ba tey it moo jotu lire seen programme parce que waxi moom yàgg nañ ko. dañuy rombu naan la lii lii lii lii buñ faloo def lu leen ne xam nga man daal man maa ngi sam bopp waaw. <laughs> maman ba léegi si actualité bi ñu ngi si CAN 2022 bi Sénégal moo jël première sippulam am ñaari nul ak benn victoire loolu na nga ko jàngatee. waa ñu gën a góorgóorlu rek xam ne lépp Sénégal la ñiy supporté ñu jàppale rek xam ne Sénégal jël ndam mooy si ñu ndam ñun ñëpp rek ñu leen di ñaanal rek. waaw <laughs> maman kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax boo amoon loo si sànni li la neex ak li la naqari sa kàddu de la fin lan lay doon. merci kontaan naa maa ngi rafetlu seen liggéey di leen wax yenn yàlla jàppale leen yàlla taxaw leen li ngeen bëgg seen site bi yenn yàlla defal leen ko ci darajaay Seydina Mohamed da ngeen maa bett nag mënu wax moo tax. kontaan nañ trop maman yow ba mënuñu la fi woon romb macha allah jërëjëf waay kontaan nañ mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di tàggu fii la ñuy ñu suñu émission gëstu bés bi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah Bienvenue sur